rajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi mbokki téléspectateur Walf TV di leeru jamono gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi yëkkati baat boobu di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa jëmi ko ci mboolem sang yi nga xam ni ñoo ngi jàkkaarloog seen rajo télévision Walfu TV di leeru jamono di ko wékk di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi niñ ko baaxoo di def rek sang yi nga xam ni ñooy wuutu mag ñi toogal leen ci seen place yi barab yu teel sell yi nga xam ni mag ñi fàkkoon nañ ko muy xalif généraux yi bàyyi wuñu benn këru diine këru diine bu ci nekk rek ànd nañu ñun ñëpp dem ba ci kanamu xalifa ba sukk suñuy bëti oom tàllal ko suñuy loxoy xol nuyu ko ziyaar ko ñaanal ko yàlla toogaayam bi yàlla yàggal ko lool ci barke yonent bi yàlla mottali yéeneem itam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke mag ñu baax ñi ñu wuutu waaye kër gu diine gu ci nekkit ñu ngay nuyu njaboot ga góor ñi ak jigéen ñi mag ñaak mag ña fa tabaarakallahu noonu la nuyu kër gi di Oustaz Sidi Lamine Niass di ko ziar ci weer wu màgg wii nga xam ni fa tabaarakallaahu ñoo ngi ci cat li yàlla na ñu àgg ci bisu korite beeg jàmm te fekkewaat ko at yu bari ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu nuyu ko bu baax ziar ko moom Oustaz Sidi Lamine Niass di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla mottali yéeneem ci kër gi ak ci réew meeg ci bitim réew bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nan la ñu sàkkoo ci moom ñaan itam ci barke maamam yaak baayam yu tedd ya tabaarakallahu nuy nuyu bu baax ñi nga xam ni ñoo ngi ci kër gi ñii di fi xëy ñii di fi gontu ñii di fi yendu ñii di fi fanaan ñu ne ñëpp ziar ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye rawatina nag suñu mbokki imaam ñi nga xam ni yàlla yi ci jumaa yi ak jàkka yi ak zawiya yi ak barabu jullikaay yi nuyu nañ leen ñoom ñëpp suñu mbokki naayib yi fàttewuñ leen ñooñ bila euh, bilaal yi kazalika ñooñ jàkka yi kazalika sëriñ daara yi ak dongo daara yëpp nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp kilifa diine yi kilifa aada yi bàyyiwuñu kenn soppe yeeg am di jàmm yi ci biir réew mi ak biti réew ku ci nekk nuyu nañ la ziar nañu la di la ñaanal di sàkku ci yow ñaan itam di bëgg lool àndaat ak yéen ci seen émission ziara bi nga xam ni Eh, nu ngi dooroon weeru koor yëpp bu dimanche jotee wala bu samedi jotee ànd ko kenn ci këru diine yi eh, tey nag fa tabarakallahu nu ngi ñëwati nag ànd teeg tabarakallahu eh, këru diine boo xamante ni doo tudd diine ci senegal te tuddoo sang bu tedd boobu nekk fii ci ndakaaru fa tabarakallahu dina leer léegi ci kanam tuuti kooku kan mooy ndeysaan Seydina Limaamul Mahdi ndeysaan sang bu tedd boobu waa këram la ñu dalal tey xanaa rekk di nuyu bu baax xalifaam bu tedd boobu ndeysaan di bay Abdoulahi caw laay maxtaar di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal njaboot gi yëpp mboolem ku njabootoo ci Seydina Limaamu góor ñi ak jigéen ñi mag ñeek mag ñi nuyu nañ ñëpp ziar nañ ñëpp fa tabaarakallaahu ndax dama koy faral di wax ma ni mag ñi ñu ndaw tout tànk la moo fay am waaye moo tax ma ne mag ñeeg mag ñi rek tabaarakallaahu su ko defee ñuy bëgg lool ci dalal gi ñu leen dalal daayira yi fu ne waaye jóge na fa ñëw ngir yàlla ak fekk si bis bii ndeysaan ngir jeex tàkk ci Seydina Limaamu ngir jeex tàkk ci ahlu laayeen kon fa tabaarakallaahu ñuy bëgg lool ci wuy bi gis ngeen ni ñu ko baaxoo di ko defee ci fépp fu ñu leen woo rek rawatina fii ci wal fajiri ñu dalal nag jànkat boo xam ni kenn rek la ci kër gi macha allahu di koo xam ni cim njàng la juddoo cim njàng la yaroo waaye xamul lu dul jàng e, ay wayjuram ci lañ nekkoon daan ko ànd ak sang bu tedd ba fa tabaarakallaahu waaye moom itam mu juddu xàmmee rek tànn ma yéene mujjee puso bi mu réer ànd koo ki magam ànd koo ki baayam ànd koo ki rakkam ak i am di jàmmam di koo xamante ni damay wax ni universel la moom fépp fu mu yëkkati rek da nga naan tariixa boobu la bokk kooku mooy kan mooy Mame Mbaye Laye Mame Mbaye Laye moom la ñu dalal tey ci émission ziyaara mu ànd ak waa daayiraam yépp ñëw daayira soppey Mame Seydi e, di leen ndokkeel ndeysaan ci ci liggéey bu mag bi ñuy liggéey ci koor gi ah, bañ na ko ba jël daayira tuddee ko soppee koor guddi gu jot ci weeru koor yu nga dégg leen ñu yëkkati baatub laa ilaha illallah di tagg yonent bi di bàkk Seydina Limaam loo xamante ni yombul ci weeru koor ndax ku dogu da ngay xaw a am ak tuuti coono waaye da nga naan sax ñii eh, li ñuy yëg dafa mel ni sax ndeysaan tabaarakallaahu kon daal yàlla nañu leen yàlla fayal ci barke yonent bi nuy xaar itam oustaz Beytir Laay Maxtaar mu ngi ci yoon wi xam naa ne léegi mu agsi eh, incha allahu rabbi moom itam bu ñëwee rek dikkal ñu ci sang bu tedd boobu Seydina Limaamu ak njabootam tabaarakallaahu kon eh, sëriñ Mambay xanaa ñu yegg si rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Seydi Kabir ñu lay ziyaara bu baax di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi Seydina Muhammad salaam di imaamil mahdi alayhi salaatu wasalaam fi axiri zaman di ziyaara bu baax mboolem kilifa diine yi di ci jiital Chérif Abdullah ibnu Rowla Isa di ko teg ci loxoom di ñaan mu jotaloon nu ko mbooleem kilifa diine ndax dinaay faral di wax ni wa'tasimu bi xablillahi yow yaa ko dégg jëfe ko jaajëf Baye Abdoulaye yàlla dafa dogal moom du Abdoulaye Laayeen mm. mais Abdoulaye umma islam bi yëpp kon mën nañu jël nuyoog umma islaam bi teg ko ci loxoom mu jotaloon nu ko ñëpp di ziyaar bu baax boroom kër gi muy Seydi Lamine di sunu kilifa di sunu sëriñ yokk ko ndimbal amiin di ziyaara Walf TV gi yëpp waaye di jël seen ziyaara ñoom ñëpp di ko teg ci sa loxo ndax yow da nga fi toogal yonent bi sallallahu toogal fi diine lislaam waaye représenté fii képp kuy taggakatu yonente bi kon ñu ngi lay ndokkeel ci bis bi di la ziyaar di ziyaara it waa ahlulaay gi yëpp defe naan tey ñi ma gunge ñëpp bari na ci ñi nga xamante ni ci jataay bi am na ci ñu dul laayeen dëgg la ñu ngi yor yeneeni kurus ndeysaan waaye sopp suñu jëmm ngir jëmmi yàlla mm. ci lii munu nattoo muy tagg yonente bi mm. moo tax fu nu jëm ñu gungeenu ñu ngi leen di ziyaar di ziyaara daayira fi teew yëpp yaraax sunu mag Babacar jóge ba yaraax sama yaay daba ak waa conseil des femmes Layène famille su ma limee rek damay juum mm. kon ñu ngi nuyu ñëpp. jërëjëf di la wax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu Serigne Mame Mbaye xanaa rek di ziar bu baax euh, ba Abdoulaye ndeysaan di ko dolli yeesal sunu njaal ci soxna su tedd si ndeysaan di soxna Laali tabaarakallahu yàlla na dajeeg sangam yu tedd ya tabaarakallaahu an dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dëkkal ko ca firdawsi ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, di wax rek ni sa suñu mbokk ma ndeysaan di eh, taawu xalifa bi tabaarakallaahu di Seydina Isa ñu koy ziar mu Chérif Mouhamad Lamine Laye tabaarakallaahu maam Ndiin Pape Modou Makhtar maam Ndiin Pape Modou Makhtar tabaarakallaahu Baye Ndiin Thiaw sama waaja tabaarakallaahu Baye Ndiin Thiaw ndeysaan Chérif Ibou Seyni ñu ngi leen di ziar ma Abdoulaye Kabe tabaarakallaahu kon daal sëriñ bi ana lan nga ñu indil rek tey ci émission ziara bi nga xam ni ñu ngi la doon xaar tabaarakallaahu waaw ah, Seydi Kabir tey damay indi rek dama koy tijjee na ma daan tijjee muy dooraat est-ce que ñu daal di ziyaara mag ñi waaw door la delloo kàddu gi jërëjëf na jéem a dooraat te tuuba drotte sa buur mi jéggalaa kon bi mooy raxmaanu yaay aziiz yaay kinu moom subhaanallaahi jabbaar fi dogal new fi wahaabu yaay kon may nu wërsëgu yaa rasaa Cheikhul Kabir yal na yàlla saxal la ci ndam xawi jaama ngi nii dëgg ma la yaa di matiin ndéem ñàkk am la am bànneex la yaay ki ko fees te sant naa ki ma wan Abdoulahi na fi yàgg te wér mux yey boroom dund moo yor dee de moo di mu miit xayul xayum may nu ab mujibu daawaati maa ngi torox luy ñaan ci barkeb imaam ilaay yàlla yàlla géejëm yaa na ne mooy waaye moom ku sa sango sango di ca naan raw gaaña yi yaa naane mooy waasi te moo di hakiim ku cay sango sango di way la laa dinay taxaw géñ yàlla ak firdawsi ak dem ca péyam ba bëril di ngën jaamu fii aaxiri zamaan demal yar rimaaxu ba jawaayil nga xam baatu laay laay laalaaw rawalaay alasaan

waf xaali man ki na bii jàlla xaaliqu taalo taalo حق كمن كل كالخ كمن أمن ماين ألسان سيدي توبي لاي توبي جاي gisuma loxo yi de imaam alaay mooy sunu yonen be maam imaam alaay mooy sunu yonen be adibo adibo oh taalo taalo taalo الخير ذمنا أنا وأنتم إليه فلم يأتي فاتكم إن فلم تأسرون تعالوا تعالوا تعالوا كم كزيار سخل دوت ووديتوي maar wa fay baawa ku yaakaar feyoo doosooy ba delloo merum aw maar bay lay ma jébbal la say mbir yow mi njaacaar ma silma xaar te ñax tootu may réer yaa ngi am tum mi wommat nu wax leen ziyaar naa la bàyyi laay yow mi doy tuwaama ziyaar naa ñi yow liggéey yow te am war maa bay lay ne rafet gëm ci bay lay moo di kii jéema roy jikkoom waxew yiw jëfew yiw maandu boo ci taalibe bay lay nee na bu leen fen bu leen jëw yeen bu leen bokk li baay laay di digle ngoogu looloo di jal kon daal te bul déglu gaay rek boy dox di puukare ndax daal lu dul diine duy teggin danoo mel ni ñuy kon nanu ànd jullindoo salaatan wa tasliman ala sayyidil wara maam li maamu laay leeram rawi jant bee jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mame Mbaye Laay ci wayu am solo yi ngeen ubbil wax naa sànq bi ñuy door ñu ngi xaar kilifa gi ndeysaan di baytir Beytiir Laay Maxtaar ndeysaan ñuy sant yàlla bu baax di ko sant it di ko gërëm ngir itam wax moom di ko xaar mu xat na tey ku ne xam na ni su mujj yi ci weeru koor tey la mm-hmm. waaye lu ko dalee ci suba ba 15 heures leneen loo ko soxlaatee ñàkk nga ko ngir yàlla ak bis bi ñu ngi lay sant bu baax kon mm-hmm. uh, ñëw na fekk si ñu waaye nag boppam la ko defal ndax njaboot Seydina Limaamu sa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa rahmatullah sëñ Kabir mm-hmm. uh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi allazina stafa wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin almustafa wa alihi wa sahbihi wa man istafa rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ah, sëñ Kabir ñu ngi lay ziyaara la feeñalal sunu cofeel ndax sa cofeel ci kër gi di la feddalil sunu fonkeel ndax sa fonkeel ci sunu doomi bopp ji di mambay ak daayira bi nga xamante ne ñoo topp ci gannaawam di daayira maam Seydi euh, di kontaan itam di ziyaara borom kër gi ndax sunu wala réewu yàgg la ndax ay année quatre-vingt ñoo daan bokk di defarnu ay conférence ki ci mosquée si di Lamine ak équipe bi koy jàppale yëpp euh, ziyaar bi nag ñu ngi koy ziyaara umma islam yëpp euh, di am kontante rek wax dëgg yàlla ni ko mambay waxe sëy naa limaamu baatu la ilaha illa laa la ñu jox paquet boo xam ni yonente yëpp paquet boobu la leen yàlla joxoon waaye bi mu ñëwee nag dafa mel na moom moo dajji paquet bi dal dañu ñu prescrire ordonnance bi wan nan lañu ñu koy jëfandikoo ndax maam ba ngi wax léegi ne bu leen fen bu leen jëw bu leen bokk ci karambaaj ndax làmmañ bu bëgg a taxoog laa ilaha illallah warul taxa itam ci gàkka-gàkka yi nga xamante ne daf koy tilimal ndax ilayhi yasaadu alkalimu tayibu wal amalu saalihu yarfauhu yàlla ne ne baatu laa ilaha illallah bu dene xol buy dunda tawxid jox naka làmmañ wu sell gàkka bu tilim tilim mhm. ne ne yàlla ne ne moo koy boppam moo koy nangul boppam Eh, bat boobu nag moom lañu ñu Seydina Limaamu jox yar ñu nag ci melo woo xam ni dañu koy melowoo ba mën jëriñoo bat bi alam tara kayfa daraba lahu masalan shajaratan tayiba eh, eh, kalimatan tayiba ka shajaratin tayiba asluha sabit wa faruha fi sama tuuti ukulaha kulla xin bi izni rabbiha jullit bi dundal la ilaha illallah yàlla def nii dafa amee misaalu garab goo xam ni ren yaa ngi ci suuf waaye nag banqaas yaa ngi ci kaw kii tudda laa ilaha illallah te kay dund nee ne dafa mel ni dafay déeyoog yàlla di ka teewlu ci jëfam ak ci waxam ki nga xamante ne looy jëf yaa ngi ciy sedd yàlla looy wax yaa ngi ciy sedd yàlla su boobaa dangay ngay waxe yiw jëfe yiw moo tax dundee jullit bi dunda la ilaha illallah eh, dafa amee misaalu reen boo xam ne meen mi yàlla moo koy suuxa ci yërmandeem su boobaa nag meññanta mu mu joxe rek addina da koy xemma jullit boobu bu waxee ñu ne ëski bu jëfee ñu ne ëski mm-hmm. moo tax seen lii moom bi mu ñëwee daanaka loolu mooy fuy fayda ruutam ana alqaayilu imaamu la kullu ma amartu wal والقول الصالح اللسان إن شاء الله أكون أمامكم ولا تبلغونني فيه فانظروا إلي واقتدوا بي في فعلي وقولي in wafaytum udxilkum tariqan najaa mu ni maa njiit mi yàlla sampe ci seen kanam charte bi ngeen di ànd ak man nag mooy lu ma leen digal ci lu sell lu yaram di jëf wala lu sell lu lammañ di addu di ko tudd maa ngi ci seen kanam doo leen ma ci dab mu ne waaye nag royu leen ma ci jëf ju yiw roy leen ma ci wax ju yiw kon loola mooy charte bi kon mu mel ni refen ngëm ci bay lay moo di jéem a roy jikkoom waxe yiw jëfe yiw kon nag baat boobu yi naan limaamu nàmpatal te nag mu nekk baat boo xam ni yonent yi mës a ñëw yëpp moom lañu ñu andil seen xeet afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli kalimatu la ilaha illa allah li sidqi qawli rasulullah afdalu ma قلت أنا والنبيون لذي الكلام لا إلا لا إلا لا وإنت ودمتي وجري وكسر أجنا دي سكر لا إلا لا كسر أجنا man qaala laa ilaha illa allah xaalisan muxlisan gufira lahu ma taqaddama min zanbi moo tax ku sell te sellal wax laa ilaha illa allah nañu la bàkkaar boo masoon a def laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah boo koy lim ci araf yi ko tëgg ñaar fukki araf la ak ñeent nga koy tollaleeg ñaar fukki waxtu ak ñent yi nga xamante ne moo làmb guddi gi ak ba ci muy vingt quatre yi mhm. kon benn la sell rek yàlla bal na la ci bàkkaaru vingt quatre heures mhm. looloo tax seen limaamu nag yar ñu ci nan la ñuy dunde baat bi mhm. ndax nag boo xoolee macha allah kenn ku ci nekk am nga sa askan am nga sa sant waaye mu jël laa ilaha illa la muy askan yi muy sant yi ñun ko limaamu lu tax mu ne ndax dafay jur xeebante eh. ndax andi ngeen fi yax bu rëy mm-hmm. andi ngeen fi bokk waasu mm-hmm. andi fi askan wu kawe askan wu daanu mm-hmm. Seydina Limaam mu ne kon nañu nëbb askan yeeg sant yi eh. ndax jullit ak moroomam waruñu xeebante kenn ku ci ne dafa am wor ma boo war a ànd sa moroom sant laay moo di sant yàlla xam ko war na gaañ yaxlu bàyyil naa leen ko fi muy jiwu barke ne mool mi dana ko joowe tuub bi dana ko yéege baykat bi dana ko béye jigéen ji dana ko barile ci nam ah xoolal nag togg gi nga xamante ne macha allah jigéen ji def ko si ñelege ci nam hmm. baarale ko cinam yekke ke cinam hmm. lekk googu tooke du ci am de fa tabarakallah moo tax seen alimaamu loolu la ñu jox fa ida qudiyati lsalaa fantashiru fi l ard wabtagu min fadlillah hmm. wazkuru llaha kasiran laalakum tuflihun boo ñëwul ci ko mën a firi gannaaw bu ngeen sottelee julli hmm. mu ne na ngeen weesaaroo ci goxi suuf dem daani seen doole tuur seen ñaxa ci tool yi ngir yóbbu seen njaboot lu lew waaye nag su ngeen bëggee faggu gi barkeel su ngeen bëggee faggu gi set wazkurullaha kasiran na ngeen ko bungee zikar laallakum tuflihun amaana ci la seen ak texe nekk moo tax seen alimaamu loolu la ñu jàngal salli salaata muwaddiin yonent bi ne ne booy julli julli julli tàggatoog addina mhm. a ah, xoolal ki nga xamante ne addina dafa tilimal ay cëram bi maanaam ngóobit yi nga xamante ne bàkkaar eh, bët góob na bàkkaar noppa góob na bakkar lam tànk itam góob na bakkar ngóobiti bàkkaar bakkar bu ko dugale ci julli mu nag mu ne nanga nangu sa bopp ci addina boola te dugg ci julli moo waral julli sikar si di sori fa laylalaw layla su ngeen amee xol bu teewlu ci yàlla fa aqimu salaata ngeen di soor a taxawalal yàlla julli ndax xol bi jaxasoog àddina kalla barraana ala qulubihim ma kanu yaksibuun yàlla mu ni ngóobitu cër yi ngóobitu cër yi mooy lan di cër yi yaram góob ci bàkkaar mu ne raana ala qulubihim mu ne dafay xomaagal seen xol moo tax xol bu xomaag boobu nag boo ko dugalee ci julli soo ne allahu akbar julli gu medd da ngay jox yàlla moo tax sëy naa limaam mu ne pour bañ a jox yàlla julli gu medd pour bañ dugg ci julli seytaane di jax sa jaxal sa xol ba ngay réparé julli ci wàññi ak yokk mhm. mu ne réparel xol bi la ilaha illallah mu ne mu ne réparel xol bi ndax boo réparé xol bi su booba seytaane dutul am fu mu jaar Seydina Rasulullah la ilaha batterie nag bu palaa wet dootul mën a alimenter leen déedéet foog ñu chargé ko foog ñu boobaa nag boo ko chargé mhm. ci nga soor am connexion ci nga soor am réseau pour mën a jokkook yàlla allahu akbar moo tax Seydina Limaamu mu dégg gu mu déggee jamono looloo tax mu ne batterie xol yi ni ngeen ko chargé ndax innal quluba tasda'u kama tasda'u al qadid allahu akbar ndax ne ne xol dafay xomaag ni wañ di xomaag ni wañ di xomaag yi mun kama jala'uha ana lan moo koy mu ne tilawatul quran wa kasratu zikrillah allahu akbar jàng alquran ak bari looy zikar moo tax seen limaamu jox zikar soosu laa taxafilu an zikrillah haysu kuntu zikr boo xam ne boobu itam mhm. yaakaar naa bu ñuy waajal ku ku tedd ndeysaan maam ci dugg waaw ndeysaan waaw xam nga loolu eh, ndeysaan seen lu waral loolu waaw lu waral loolu mhm. dafa wax ni dafa ñëw fekk jamono Eh, bu dee ne ñu ngi bunge niiw dañuy waxtaan fàtte sax ne ki ñu ngi koy jébbal boromam pour nag xel yëpp dem ci yàlla mu ne daaj bi nag malakal mawti ruu gaa yi yàlla yi bu leen di yóbbu ci malaul la ne ne daaj boobu la leen di bong bunge moom la leen di yóbboo moo tax si Seydina Limaamu ni daf ko topp ñaari yoon ci ñetteel bi yoon ba mu yéeg malaul aala la jël daaj bi jox ko waa këram nan la ko yékkee jullee kay dina fa teew te néew ba day jënoog jëmam ku sopp Seydina Limaamu Laay sunu bawoo jàkk moo ma dox si kër sëriir limaamu jiitu néew ba xool ci aljanaa ki xéewalam Seydina Limaamu Laay amunu sa fay bàyyi nee na sunu àggee ca xabru ba ba ñetti góor dugg ca biir ñeenteel ba mooy limaamu laay te néew ba day jëm ak jëmmam Seydina limaamu laay na yooyu saa kuréel bu ëpp bi kuréel gën leen a neex si kar daal di ne sa kanam Seydina limaamu laay nee na danoo rafet ni xeeñ lu neex ba woo ca kaw ci xaali xunaa mooy sunu palaat ñu naan ca maamu Kawsara ku nekk door a dem këram Seydina Limaamu Laay nee na sunu sangoo ca Kawsara nooneel ya foofa lay dañee bañante foofa lay dañee soppante daw sunu yaram ku sopp Seydina Limaamu Laay bay laay nee na bawu ma leen ba ngeen di tàbbi aljana ba toog ca lal ya fàtte ma ba fàtte la doole ndax nag ni lu yonent ma sa moo ko gën a rëy la boo xam ni addinaak li ci biir dara ëpp ko qul law kaana albaxru midadan li kalimati rabbi la nafida albaxru qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw jihna bi mislihi madada yàlla ngir misaal ñu ngëneelal baat bi mu ne bu ñu jëloon géej gi àddina yëpp def ko daa jël xalima garab yëpp dal di ko yett ay xalima di yaxal di bind ngëneelal baat bi ne na géej gi danañu ngis xalima yi danañu damm te duñu watal ngëneelul baat qul law kaana albaxru way law kaana law kaana yooyu nan la ñuy xàmmee kuréelu ëxlu laay mu ni mu ngi mel ni ñu nekk ci kaw wala guddi jot ñu teen di xool asamaan si na ñuy gise biddéew yi noonu la ñuy gise seen kanam yiy mel xëti ndax seen jeneeri leer ya ñooy leer mel ni weer wa di leer gindi su boobaa yàlla day yabal malaaka yi ñu wàcc ci biir studio bi malaaka ya péeg leen wër leen teyir leen fu ngeen mee ñu leen bi zikril ilah ñu ni ko mu ni malaaka yooyu sunu wàccee ñoom du nu dellu fekk gaa ya ngay booloo ci yàlla te doyloo bi zikril ilah gaa yi leen subhaanahu wa taala ba saa yu ñu delloo ca buur ba nu doyloo mu laaj yàlla laajee malaaka yi dan kanaan yaa raxmaan ñun danoo ragal niiraan te bëgg am riiwaan bi raxmatillah niiraan mooy sawara ridwaan mooy aljana waaye ñaar yooyu yëpp bala yàlla dina ci jox dara yàlla day laaj ndax danoo mës a gis sax mbugal ya ca biir taax nu gëm ma ba tey yàllaa ngi laaj mu nga naan gaañoo ñuy laaj àjjana am ñoom dañu seenoon aljanaa kiwil daan di teeru ña deewoon fi rahmatillah su boobaa ñu ni ki xéewalam masunu gis sawaraa ki ngaañam waaye déggoon nan nga yónni sa yonent seydinaa muhammadu rasulullaay mi imaami laay fii ñoom dañu dégg anka rasuulu wax leen ko nu gëm ko wallaay su boobaa yàlla danaan may naa leen ku ci bëgg a bokk la nuy maa leen di wootu musalle bi nasratillah su boobaa malaaka ya dan kanaan waxuma ustaas ma ca biir studio ba waxuma Seydi Kabir ma ca biir studio ba waaye am na ku nekk ca ruqa ba mu ngay dégg zikrulaay su boobaa dan kana di wa nga fa kooka da doon déglu rek ka bi zikril su boobaa la ne xam baaxug yàlla ndax yàlla danaan jéggal naa ñoom ñëppate wóor na ak ku xolam ku ma soppal maam li maamu laa ci wax waay waay li dey doy na ci wax ay wax ne buur yàlla moo wax bi zikr la mi ñëw ngir nu jaamu tawxiid tax maam Maodo nee ni malaikullahi naziltum min alkurama xufat bi xufat bi jamikum tubaali man xadaaro wasal yan ya ila waay waay wasiyan yëkkati ko waay Maodo Malick nee na walaaw yasalu maa matlubakum fa ida ma jawaboohu tanaa صليا يا إلهي وسيا أبدا محمد متعرف الخدم ما ذكرت لكم سيدي الخاج مالك نينا يا منكرون فمن ينكر له خطر والله والله والله Mhm. Mhm. jërëjëf màmbay Mbaye jërëjëf euh, euh, xam naa rek dañuy taxaw foofu mhm. dem régie jëli téléphone yi te ñëwaat am na dellusiwaat euh, xam naa ne gaañaa ngi ñuy xaar ci ligne bi fi mu nekk ni xool yëpp tooy na alhamdulilah Mame Mbaye li mu fi tàmbalee rek Oustaz Baytir ñëw moom itam indi ñu waxtaan woo xam ne sëñ naa li mam waxuma sax xam-xam waaye yar beeg dal geeg teggin gi ak itam xorma damay wax ni képp ku toog àdduna bépp di la seetaan nga jël ki nga àndal ni moo gën ñëpp dëgg-dëgg suñ la ko waxee suñ la ko waxul am na ñoo xam ne d'accord ñoo ak yow mm-hmm. ndax ku ci nekk rek am nga koo xam ni wallaahi mm-hmm. yaakaar nga ni moom rek kay waaje mm-hmm. moo tax fa tabaarakallaahu ñiy waxtaan ci tele maa ngi leen di saani rek le message boobu ñu bàyyi xel toujours bu ñu wetee nag suñu ruq lu neex nañ ko wax waaye télé ñëpp a koy seetaan tabaarakallaahu ni nga waxtaanee dafa am solo lool lool lool macha allah kon tabaarakallaahu ñëw nañu ci eh, téléphone yi am na ku nekk ci ligne bi ñu wax ko ku tedd ki bismillah allo waaw kooku coupé na xam naa dina ñëw ci 88 628 99 99 114 incha allah ci eh, ñi nga xam ni dalal nañ leen muy waa kër Seydina Limaamu dégg nga way am solo woowu nga xam ne allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah ku baax ki. alaaji Ayoba bu ñoom rek. Ah, bisimilah alxaaji Ayoba bu ñoom rek. tabaarakallah. Ah, waaw ñu ngi nuyu sëñ Baytiir Seen. sëñ Baytiir mu ngi lay dégg. Ah. ñu ngi leen di ndokkeel. waaw ñu ngi lay delloo ziyaara. tabaarakallah wallaay ndeysaan alhamdulilah. ñoo ngi woote fii ci yëmbal. journal Baye Ablaye Sow. alhamdulilah di ndokkeel suñu bopp yi laa yéen yëpp leen siyaare di bég ci ñoom bu baax a baax ndax ñoom. xajoon nañ ndax ku ñëwul ngir jëm it ñëw ngir jëriñu si ndax man maa nga dëkk sa ñor suñ bokki laay ñu nekk yëmbal ñoo a dalal mhm. teg na ca kaw bokk ak man lépp mhm. xajoo ñëpp la bàyyi laay waxoon ne yàq li leen fakkat yi ak kër yi gan ñaa ni ñëw ndakaaru ñëpp ñëw nañ tey ku ñëwul ngir jëm ñëw ngir jëriñu si loolu moom li wér na àdduna ah la ca dolli ko noonu ñaanal suñu bokk yi it sax di tagg yeneen ci bi nañ leen jàppale ndax ñu ngi jàppale waa làmb ja ñu ngi jàppale waa football ba ñu ngi jàppale waa fecc ba ñu ngi jàppale ñeneen ak ñeneen kon nag ñi nga xamante ne ñooy tagg yonent bi ak conférence yi di wax jaar-jaar yonent bi nañ leen jàppale ñoo jar kër ñoo jar oto ñoo jar may bii ñoo jar may lu ne ba tax na kon loolu maa ngi koy soññu Sénégal yi yëpp ñu xam ne ñii di tagg yàlla ak yonent bi daal lu waay man ñoom rek la ko war a jox la ko doon ko ñii tagg ndax am na ci kànt yoo xam ne boo ca demee kat bu soree daanaka ak lambu ja jàppee ci ma te yeneen nag yeneen nag yeneen ba tax na kon loolu bu baax a baax ci suñu diine nag jërëjëf suñu ndax ñoom xajoo leen ñëpp de ndax boo demee seen tànt jàng yëpp la ñuy jàng dëgg la téere yëpp la ñuy jàng man nag bi ci gën a dal sama yaram mooy boobu ñuy seen niiw yi boobu moom lu waay kàccoor kàccoor kàccoor bu ko ci këree rek san xel di si wax kon nag sëñ Abdoulaye Thiaw yàlla na yàgg te wér doomam ji nekk yëmbali sëñ Cheikh yàgg te wér ak mboolem njaboot ak lu béy ci loolu retour yëpp rek salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf tabaarakallaahu Cheikh El Hadj Ayouba Lo bu ñoom rek ci wax ju am solo jooju tabaarakallaahu gis ngeen li mu wax ci ñi tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñoom daal war nañ leen a jàppale am na kenn ku topp ci gannaawam ñu koy wax bismillah ku tedd ki alo allo. allo waaw dafa mel ni kooku rëcc na xanaa nuy ziyaara bu baax oustaz Pam Makumbaan dafa mel ni delsi na waaw allo allo allo Cheikh dafa mel ni kooku génn na xam naa ni dina ñëwaat ci 88 628 4 waaw mu ngi ci kon bismillah allo aleykum salaam man la Mamadou Diagne. Euh, tur bi naka la foo ñu woowee. man la Mamadou Diagne teenu Ablaye Diagne. bismillah. ñu ngi ziar. bismillah. Cambérène. Cambérène bismillah. laay Mamadou Makhtar. laay laay laay Makhtar. kontaan nañ ci invitation bi trop. yéen a ko moom. ana leen yàlla fay. amiin waay. mam bay suñu doom jooju ñu ngi koy ñaanal. di ko ziar. ak béy si moom suñu sang bi. Eh. Laye Modou Makhtar jërëjëf. jërëjëf Laye Makhtar a yegg jërëjëf. jërëjëf mu ngi ñuy woowe foofu ca Cambérène mhm. tabaarakallaahu oustaz gis nga tabaarakallaahu mbokk yi ñoom mhm. gis nga aye baloo bu ñomre bii mhm. waa am na kenn ku ci topp ginnaawam allo allo bismillah ku baax ka allo allo allo waaye yow rek la ñuy déglu. waaw Laye Makhtar. Laye Laye. Laye Mamadou. wuy leen wuy leen. allo bu baax. Ah, ñu ngi delloo ziar Laye Makhtar. Laye Mambay. Laye Makhtar. Ah, man la Ousseynou. kooku kan la. yëmbal. Laye Makhtar sang bi ñu bu baax. si anam bu baax a baax Mambay. jërëjëf Laye Makhtar. li nga fi sikkal macha allah neex na. alhamdulilah. yal na yàlla adressé yoon. Hmm. ay sen bët béy bi kontaan na si moom waxtaan baax. wallaahi. wallaahi ñu ngi lay delloo ziar waaw ñu ngi gërëm ahlu seen alimaam bépp. alhamdulilah yal na yàlla kontaan na di ñaanal sëñ tabarakallah waa yo ay waa yëmbal ñëpp ñu ngi lay seetaan. jërëjëf la ñu ngi ñaanal sëñ Cheikh Gallo sëñ Abdoulaye yal na fi yàgg te wér. incha waaw sëñ sëñ ba sëñ Béthio Gueye waaw sëñ bi ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay ziyaar bu baax a baax waaw yal na yàlla nangu ziyaara waaw dawaale Seyna Issa waaw nga wax ci tuuti rek ñu ngi déglu bu baax ci Seyna ndax amul photo Seyna amul photo waaw waaw jërëjëf Baye Makhtar jërëjëf jërëjëf jërëjëf wax na lay Makhtar jërëjëf loolu Cheikh Baytir dina ci delsi incha allahu dina yaatu lool tey moom wax naa leen lépp dana leer fii ci kàttanu yàlla mm-hmm. ndax eh, xam-xam eh, li koy li koy wodd eh, ba tax ñëpp mën laa déglu mooy mm-hmm. ma ak mm-hmm. teggin te feesal na ko macha allah wax dëgg yàlla laay maxtaar yàlla nañu la yàlla fay amiin amiin amiin su ko defee dafa mel ni am na kenn ku ci topp Cheikh Tidiane waaw kooku dem na xam naa dina ñëwaat mu ngi noonu di ñëwaat xanaa ñu wax ko bisimilah ku baax ki allo. allo. allo bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ah. allo allo. allo euh, maa ngi ñu ngi lay fay. ci seen tur ak seen sant yéen ñëpp. Mhm, di ziaru sëñ Ablaye Thiaw yàlla na fi yàgg te wér. amiin amiin moo xalifa yu baax yëpp. amiin allo. waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax waaw. yokkal yokkal ñu ngi lay yow ñu ngi lay dégg bu baax. su ko yokkee rek dootul neex de. Ah, ah, ah, Baye Mbaye. Laay Maxtaar. Laay Laay. Laay Mamadou Maxtaar. Laay Mamadou Maxtaar. yal na yàlla guddal sa fan. allahumma amiin. yal na yàlla defal la jàmm. amiin yaa rabbal maa ngi ziar waa axlu bi axlu bayti yëpp. may siyaar sama sang ba maam Alsaan yal na ko yàlla may wér may ko mbooloo mi jullit amiin yaa rabbal yal na ko yàlla may wér may ko mbooloo mi jullit maam Alsaan moom am Babacar kooku jëf jërë ngeen jëf kooku doon wax sànq nag hmm.